source a ñoom nag dañoo dikkaat ci toxal ba toxal service hôpital Aristide Le ya ak defar bañ ko war a defaraat ñu ne nag loolu am na ay lees waxul euh, yu sane ñëwaat nañ itam ci mbirum Pape Djibril Fall démb nag jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi moom nag euh, xamle na ne ci kujje gi euh, lay des wante nag àndul ak Yewwi àndul ak wàllu ñëw nañ ba léegi ci li nga xam ne mooy ab mbir bu xew fële ca mbir moo xam ne daal ñu ne mën nañ ko méngale ak mbir moo xam ne mbirum euh, xalaas la muy daal euh, université bu Ziguinchor euh, ab takk der kon moom daal lañ fa teg loxo ci mbirum trafic de drogue libération dañoo ñëw ci Sénélec ñu ne moom nag fi mu nekk nii daal boo mayul dina am ay jafe-jafe ndax daal ay koppar yoo xam ne kon dañ ko kaa yoreel te moom mënul leb ci banque yi ñu ne nag boo mayul daal Euh, euh, ay euh, koppar yoo xam ne kon dina toll ci deux cent milliards ci ay créances maanaam li ko yoreel nar na ko indil ay jafe-jafe ñëwaat nañ itam ci mbirum nigérien bii di topp Benga moom nag nee nañ teg nañ ko loxo fële ci AIBD gannaaw bi nga xamee ne justice américaine ñu ngi ko doon wër ba léegi ñëwaat nañ ci tëjum hôpital La Dantec ak kii di euh, professeur Moustapha Ndiaye di médecin euh, neurologue moom nag euh, nekk foofu la ci hôpital Fann nee na tëj boobu ñu tëj sax du yëfu nit te mbir moo xam ne mbir mu mënoon ñàkk la le témoin yéen kaay dañoo ñëw ci. ay coowoo yu am ci euh, contrôleur ak inspecteur des impôts et domaines ñu ne fi mu nekk nii nag coow la euh, bëri na seen diggante ñu ne nag euh, ki nga xam ne moom mooy maam booy Diao sax ñeenti hectare yi nga xam ne joxoon nañ ko Saïd jëlaat na ko. ñëwaat nañ ba léegi ci euh, mbirum euh, diplomate sénégalais boobu di Oumou Sall ak jafe-jafe mu amoon fële ca Canada ñu ne loolu nag booy xool dafa nekk mbir moo xam ne sax dafa feeñ euh, ci li nga xam ne ñii di diplomate sénégalais yi dinay xew ci seen biir. l'observateur l'Obs dañoo ñëw nag ba léegi ci bor yooyu nga xam ne dañ ko yoreel Sénélec ñu ne nag lu ëpp cent milliards la te boo moytuwul loo xam ne la dina indil jafe-jafe. waa Senelec bor yooyu nag lim nañ ci ñi ko yore lu mel ni seen TER ay Limac de université ak ñoom seen ñëwaat nañ ba léegi ci ab reportage boo xam ne amal nañ ko ci tëj bi ñu tëj hôpital Aristide Le Dantec ak it ab taxaw seetlu bu ñu def ci Grand Parti juróom-ñaari at gannaaw bañ ko taxawalee ak léegi. le pop populaire euh, ba léegi dañoo ñëwaat ci Pape Djibril Fall euh, mi nga xam ne nag euh, nee na dinañ nekk wala bokk dina doon député boo xam ne député peuple lay doon maanaam du ànd ma Samba du ànd ak ma ba wante daal député du peuple maanaam askan wi lay taxawal foofu la ci assemblée nationale ñëwaat nañ itam ci Abdoulaye Wade moom nag nee na PDS daal booy xool moom mooy première force bu opposition parlementaire bi ñëwaat nañ itam ci Guy Marius Sagna gannaaw bi ñu ko tabbee député nag moom nag nee na sénégalais bu ko kenn woowee honorable ndax seen mbindaan la nañ koy woowee mbindaan wala surga le quotidien yéen kaay dañoo ñëw ci ab waxtaan boo xam ne amal nañ ko ak ambassadeur Chine fii ki Sénégal Ziawo Khan moom nag euh, wax na daal projet yoo xam ne réewam am nañ kook Sénégal ci mbirum agriculture ñëwaat nañ itam ci mbir moo xam ne Euh, dafa ñeel euh, cent quinze sénégalais yoo xam ne dañ leen dàqee fële ca euh, Algérie ñu ne nag ñu ngi daj lu métti fi nga xam ne moom mooy DGR bu Niger bi surtout Sud Quotidien dañoo ñëwaat ci jeexitalu mandat bu njiitu réew mi Macky Sall ak nag jafe-jafe yi nga xam ne kon demee ko nañ lu ci mel ni njëgu yokk yi Euh, lii di euh, benno bi nga xam ne am na jafe-jafe biir parti bi euh, coalition bi wante itam opposition bi nga xam ne dañoo jël doole ci ñaar élection yi ñu génn ak it nouveau gouvernement bi nga xam ne kon war na ko taxawal ñëwaat nañ itam ci mbirum terrorisme ak euh, Mali ak France fi mu nekk nii nag euh, coow la euh, jógaat seen diggante direct news dañoo ñëwaat ba léegi ci Ablaye Wade ak parti démocratique sénégalais bi nga xam ne fi mu nekk nii mu ngi koy taxawalaat lu si mel ni njaayum carte ak daal dajalewaat nit yi. wante itam ci Guy Marius Sagna mi ngi ne dina amal ab marche samdi bi ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykatu hôpital Le Dantec bés bi le jour dañoo ñëwaat ba léegi ci Ablaye Wade ak mbirum chef de l' opposition bi moom nag jàpp na ne fi mu nekk nii PDS moom daal mooy euh, numéro un ci opposition euh, parlementaire bi ak it euh, taxawaay bi nga xam ne fi mu nekk nii ñu ngi koy am ngir deux mille vingt quatre ñëwaat nañ itam ci niiw yooyu nga xam ne dañu ne. dañoo nekk fële ca morgue l'hôpital la Dantec lu toll ci cinquante cinq te sax xamuñu seen mbokk ñu ne nag lu toll ci vingt neuf ci ay bébé yoo xam ne dañu leen sànni bokk nañ ca les éco yéeni kay dañoo ñëw ci euh, mbirum mairie de dakaar ñu ne nag euh, six mois mu ngi nii li nga xam ne moom mooy cabinet bi feeñu leen seeni salaire wante itam ñëwaat nañ ci Sagar Diouf mi nga xam ne mooy secrétaire national chargé des élections bu AJ PADS mu ne nag ñoom seen parti daal nekkul parti boo xam ne day topp ci day lang rek ci ginnaaw parti eh, di ko topp Walf Quotidien dañoo ñëw ci eh, ñu ne nag Sénégal fi mu nekk nii daal amul ku ko eh, jiite gannaaw bi nga xam ne Macky Sall mu ngi ci ay tukki premier ministre amul te assemblée nationale président ba mu ngi ci fin de mandat ñu ne Sénégal daal fi mu nekk nii kon kenn jiite ko wante itam ñëwaat nañ. ci Guy Marius Sagna nee na daal 2024 euh, moom pour candidat Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko la tànn l'évidence quotidien dañoo ñëw ci campagne bi nga xam ne Bougane Gueye Dany amaloon na ko ci élection législative yi te sax doonuloon candidat euh, moom nag nee na loolu da ko doon def rek ngir sénégalais yi wante itam ñëwaat nañ ci njiitu réew mi Macky Sall ak tànn bi nga xam ne war na koo tànn lii di premier ministre ak président bu assemblée nationale ñu ne loolu nag euh, tànn la boo xam ne daal tànn bu jafe lay doon euh, ci moom euh, moomule tribune yéen a kaay nag dañoo ñëw ci njiitu réew mi ba léegi Macky sàll ak daal ay alliés maanaam àndandoo yoo xam ne dañoo gis ñu àndandoo ko moom te sax ñu jàpp ñu koy sonal lañ rek te bariwuñ njëriñ bokk na ca PS AFP réew mi bés du ñàkk. PSD ak euh, PIT ñëwaat nañ itam ci euh, Bougane Gueye Dany mi wax ne njiitu réew mi Macky Sall daal bu dee dafa bëgg daal euh, forcer troisième candidature dinañ ko fekki foofu la ca këram ca Mermoz laas yéene kaay dañoo ñëw ci professeur Ndioro Ndiaye moom nag nee na président ki nga xam ne moom lañ war a mu jiite assemblée nationale mu ne Mimi Touré moo ko ca doy wante itam ñëwaat nañ ci euh, kii di Moussa Baldé jëriñ gi ñu dénk wàllum mbéy mi nee na daal euh, Sénégal mën nañu moom seen bopp ci mbirum pepp l'enquête euh, dafa ñëw journal enquête kon dafa ñëw ci li nga xam ne moom mooy installation bu quatorzième législature bi ñu ne fi mu nekk nii nag Benno Bokk Yaakaar Macky Sall ak ñi mu àndal ñu ngi si seeni euh, pexe ñëwaat nañ itam ci diggante Mali ak euh, euh, France gannaaw bi nga xamee ne kon Mali dañuy daal jiiñ waa France mbirum ay terroristes yoo xam ne kon dañ leen di jox ay armes enquête boobu sax kon la ñu koy jeexalee di leen doon tey jeex baa di rafetlu seen teewlu di leen jox di daje ëllëg jaa jëf.